sama gars yi maa leen di ziar xam naa ne baaxoo moo woon a wax ci leneen sax lu bokkut ak uh, ay affaire Ousmane Sonko yooyu uh, waaye affaire Kouthia bi xaw na ma touché am na ñu ma dégg sax ñu ne Kouthia dafa defoon ab benn témoignage ci Ousmane Sonko boobu ak léegi la ko gars yi sengali di génn ay vocalam yum vocaloon benn ak benn jigéen ay vocal ak ay appel yu ñu enregistré. gis naa ko gis naa compte bi nga xam ne dañ ko tijji uniquement pour uniquement rek pour pour kii ko pour déstabiliser ko pour yàq ko loolu nag yàgg na fi euh, génn na gis naa tamit ñenn ci ñum parce que dafa tudd ñu bëree bëri ci audio yi gis naa ñenn ci ku mel ne Amina Poté gis naa mu génn tont tontu bu xaw a dëgg mais loolu damay jàpp ne jaru ko parce que comme nit la koo xam ne kenn la doon waxal nekkul woon lu mu doon waxee ci public. kenn nit la doon waxal lu nekkoon ci privé la kooku moo ko jëli indi ko ci public bi jàppoon naa ne pour dimbali ko parce que tamit néewul nag ñu waxal la yenn yi mais pour dimbali ko ak pour bañaa may ndam ki nga xam ne moo jóg pour yàq ko mooy woon daanaka bàyyi ko woon noonu jarul woon tontu daal pour man ñaareel bi mooy nelaw nelaw trop trop koo xam ne ku caa def na ko loolu nag day dal ñu bari. gars yi nee nañ bis bi ngay daanu xaw ma na ko la fi di di léebee cuune ngay doon bis bi ngay daanu cuune ngay doon mais ak fii jamono toll surtout jigéen boo xam ne yaa ngi koy woo yow yaay wax moom mu naan rek waaw di la gën a appuyer pour nga wax mu lay woowal boppam ay appel vidéo ay appel vocal yooyu yëpp feeñ na pour yow ngay wax kooku dafa jaroon a tey xel bu baax a baax jigéen moom soo dee wax ak moom yaa ngi wax ak moom moom nanguwu laa dara yow nga sotti ko di wax rek loolu waroon ngaa comprendre ne moom mi lay enregistré waaw ngaa comprendre ne mi ngi jamono bii sax dafa tull tull jamono enregistré te am na loo xam ne daal ku yeewu ku mature du ko def ku mature du ko def donte xëy na njuumte moom doomu aadama lay dal. mais am na loo xam ne daal wax dëgg yàlla ku mature rek moom dina koy moytu bu baax a baax a baax beneen bi mooy nit yi nga xam ne ñu ngi ciy jàppale waa ji di ko tasaare di ko partager fu nekk dañ faral di wax lu bon moom boo ko tasaaree ba bàkkaar bu ca ka bon la yow ma ko partager da ca am bàkkaar noonu maa ngi nekkoon ci benn groupe boo xam ne admin ci admin yi laa bokk bi ko waa ji dugalee dama ko supprimer ko supprimer parce que loolu yokkul ci suñ dund dara wàññiwu ci dara waaw loolu moom nit ñi ay bàkkaar lañ ciy gën a yokkoo rek mais amalu leen njariñ presque